xam ni xalif de moo di moom moo ko mettre en place ñu koy wax junnatun euh, ñu indi loon leen résultat recensement bi nga xam ni ñoo ngi ko doon def ci dëkk bi bi nga xamee ni taw bi indi na fi ay loraange bi ñu ñëwee nag euh, dénombré nañu fukki junni ak benn ak téeméer ak euh, fanweer ak juróom-ñeent ñoo xam ne dañu am loraange ci ci ci mbënn mi donc léegi document bi jox nañ ko waa junnatun léegi bu ko defee ñoom dinañ ko exploité xool nan lañ ci mën a def yàqu-yàqu yi moom dafa bari bon ñëpp yemale wuñu ko am na ñoo xam ne seen kër dafa daanu am na ñoo xam ne seen mur dafa daanu am na ñoo xam ne ndox mi dafa nekk ci seen biir kër am na ñoo xam ne seen i yére la yàq am na ñoo xam ne seen i la yàq am na ñoo xam ne seen dund la yàq donc mënuñu am benn typologie unique ci dégâts yi nga xam ne moom la ndox mi def mais daal xam nañu lii donc euh, pour cas yooyu yëpp ménage yi nga xam ne recensé nañ loolu yëpp yu ci bëri spécifié nañ yan yàqu-yàqu la ñu am loolu tax naa ko waa nii mooy euh, dëkk koñ yu bare bari ak yoon yu bare bari gis nañ ni libéré na ndox génn na ci kër yi ba am na sax ñoo xam ne jóge nañu fi ñu nekkoon ba delluwaat seen biir kër loolu mën nañ ko wax et que du jeex na waaye li ëppoon jeex séddale ndimbal yi moom mënumaa wax kañ lay tàmbali lii mu wóor daal mooy ñun recensement bi nga xam ne moom la santoon def nañu ko ñëw nañ jébbal résultat yi waaj na nekk ñoom ñooy xool kañ lañu mën a doon si loolu ñaari commission parce que bi ñu toogee waxtaan ak euh, comité bi nga xam ni mooy junnatul ak administration dañu convenir oon ni recensement yi administration moo koy def donc amul beneen recensement en tout cas amaa ma connaissance amul beneen recensement man bu ma xam bi ma xam daal mooy ñun li ñu waxoon mooy ñun ñooy def recensement bi génne résultat yi partagé ko ak waa Junnatu loolu laa def si tey. monsieur le sous-préfet d'abord ci li nga xam ne indi na ko ndax dafay liggéey boo xam ne li ñuy def ñun mënuñu koo def te sukkandikuñu ci lool muy recensement bi te def nañ ko muy liggéey bu mucc ayib ndax ñun ñoo nekk ndoo woon ak ñoom ci terrain bi xam nañ ne li ñu mobiliser ci ay agents euh, dépassé de deux cent et quelques agents yoo xamante ne kër gu ne dinañ fa wàcc. ba li ñuy bind xam nañ ne dañ koy teg ci lu leer ndax kër gi dañuy dem ba xool ne lii euh, sinistré la ñu teg ci seen bët door a mën a bind euh, boole ci ak lépp loo xam ne tamit mooy tax ñu xam ne li ñuy wax wér na kon ñu ngi koy sant di sant ci biir loolu l'état du Sénégal ndax loolu ndimbal la lu ñu indil waa Touba leneen li ci des itam mooy tey jii day bis boo xam ne ñoom biñ ñu tegalee loolu fekkoon na ñun ñu waaj ba jekk Euh, ngir tàmbali sunu liggéey ndax xam ngeen ne comité bi mooy comité de pilotage bi dara taxu ko jóg lu dul ànd ak du Mamadou taxa muy Touba ca kanam muy commune de Touba muy Hizbut Tarqiyyah ñëpp dañoo boole doon benn structure ànd liggéey bi ngir fexe ba ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënn mi ñu an fexe ba ndimbali yi sëñ bi génne ak nit ñi taalibe yi li fi indi ñu fexe ba mu àgg ci ñoom loolu nag fi ñu toll di euh, recensement bi lañ doon xaar. ñu fexe ba euh, procéder par benn méthodologie bu leer nañ ba nga xam ne distribution bi dina gaaw waaye dina mucc ayib fi ñu toll nii def nañ ay points yoo xam ne ay points magasin yu yaatu yoo xam ne dañu fexe mu jege population yi waaj nañ tout le dispositif li ñu doon xaar rek mooy préfet ñëw ñu mën a tàmbali liggéey bi kon loolu moom mooy ndimbal li li ci jiitu nga xam ne moom ñëpp ñoo koy bokk moom li ci jiitu dina am dund masalan lu mel ni diggante ceeb ak diw ak lu mel ni xaalis tuuti loo xam ne dina dimbali ndax nit ki nga xam ne nekk na ci jafe-jafe la nga koy jox lu mu néew néew néew du indemnisation maanaam du approche boobu ndimbal la loo xamante ne sëriñ bi képp ku ñëw Touba ci njabootam nga donc massaw gi mu lay massaw loolu la ci loolu lay firi taalibe yi ci loolu lañ fekk si sëriñ bi moom moo jëkk indi deux cent millions de francs CFA taalibe yi tàmbali tamit ku ci ne di indi loolu ñu indi nag nit ñee ko tax a jóg ñun tamit dañ koy sàmm ba mu doon loo xam ne day àgg ci nit ñi waaye nag boo ko xoolee li ñu jot a jël muy recensement bi muy onze mille cent trente neuf ménages yi ñu jot a recensé rek liñ ci calculer mu war leen ko jox ça se situe entre sept cent million de francs CFA jëm huit cent millions. huit cent millions yi ma lay wax nii mooy diggante ceeb ak diw ak as as lëf ci weccit xaalis yi leen di jox loolu dong la mais actuellement ñun li ñu mobiliser gum ci moyen li ñu mobiliser gum ci moyen. Euh, fonctionnement interne sa bokk ci loolu duñ ko laal ci xaalis yi ndax ñi fi nekk dañoo jaayante ñi fi nekk dañoo jaayante ci seen carburant bopp ci seen i pexe bopp lañ fi ñëwee sëñ moo leen tax a xëy mooy mobilisation boo gisee ñu mooy post yu mel nii ñetti post yi rek la benn poste bi mooy lan mooy tax ndox mi génn ci kër yi donc dégage ndox mi loolu foog nga mobiliser da ngay jënd ay ay rak ay tuyaux da ngay da ngay mobiliser ay moto pompe da ngay mobiliser ay équipe technique da ngay loolu mooy liggéey bi nga xam ne moo ci ëpp beneen post bi c'est social mooy ndimbal yi jëm ci nit ñi à part nag leneen li nga xam ne lu ñàkk solo lay doon ci ci bi mooy le fonds de roulement qui va permettre aux équipes d'être opérationnelles jeex na nee naa la ki ci gën a néewle dina am ñaari saaku ceeb ñaari saaku ceeb mooy cent kilos ceeb waxuma sa saako vingt cinq kilo de ñaari saako cinquante kilos ak fukki litre diw ak juróomi junni gën gaa néew waaye am na ci ñoo xam ne dinañ ëppale loolu ndax di nga gis koo xam ne faw ñu jàppalewaat ko mu gën a taxaw am na ñoo xam ne tamit euh, ñaari saaku ceeb bi day du am solo trop ci ñoom ndax daara la ñu doon donc daara ji day doon barab boo xam ne la fay nekk ak la fay yeewoo day gën a am solo loolu da koy yomb donc maanaam daal ci gàttal euh, fii daal moom waaj nañu ba jekk ndax ndimbala sëñ Tuubaa moom la ñu àndal te ndongo yi taalibe yi seen xol nangu na ñi li ñu yor jox ko sëñ Tuubaa moo leen gën a téyel ko seen bopp loolu muy dox